mbokki internet yi rawatina les abonnés de Sénégal 7 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci seen rubrique kumpa gi li nga xam ni mooy feebar bii nga xam ni mooy coronavirus dafa mel ni Sénégal yi ko xaw a sàggane te moonte ngi def ay njombe ci jamono yi ñu toll nii ci dëkk bi ndaxte delta omicron di virus bu bees bi nga xam ni moom mujjee génn dañ ko soobantal te moonte mi ngi faagaagal ndaxte ñu bëri dañuy feebar te duñu xam ni sax ndax feebar bi dal na leen ba tax na rek ñi nga xam ni ñooy waa kër docteur di ci àddu ngir gën a ñaax askan wi ñu daal di euh, fàggasndiku li nga xam ni rek mooy virus bi nga xam ni jamono yi ngi lëmbe àdduna bi rawatina fii ci réewum Sénégal ki nga xam ni mooy docteur Massar Gueye di ñaax askan wi dellu nag di wax ni lii nga xam ni mooy feebar bi dafa am lu mu lamboo loo xamante ni ji bokkul ak yeneen yi fi jaaroon li nga xam ni moo nekkoon coronavirus doon na feeñal ay symptômes yoo xamante ni ji ku mu dal di nga xam ni coronavirus moo ko dal delta omicron bi dafa nekk virus boo nga xamante ni ji mën na sonal nit te du ci xam dara te li koy firndeel mooy jamono yi ñu toll nii foo toll ci dëkk bi daanaka ñëpp grippe ñëpp tamit ñooy jàmbat ay bopp yu metti wala sax seen yaram yu naqar yi na rek moom mu ciy waaw li ñu gën a gis daal mooy si yoo xam ni day mel ni grippe donc maanaam asthénie physique maanaam coono gu rëy donc put buy metti aussi dinañ ko gis maanaam si ñi nga xam ni day fàttali nit ñi grippe mais dinañ gis aussi ay si yoo xam ni xaaruñu ko woon daan nañ ko gis ci variant bi ñuy woowee delta mais bii xamit xaw na ci bëri nga tey jàngoro yu mel nii nga xam ni ñun ñu koy dëppalee comme lu xaw njuru grippe boo ci gisee ay signes yoo xam ni quelque ay wàccu la wala vomissement mën na xaw réeral professionnel de santé bi ci li ñu woowee diagnostic mais daal ñu bàyyi ci xel parce que ci signe atypique yi ci la bokk war nañ ñëw tout le temps di ñëw hôpital saytu feebar bi ñu ngi yor test yi ñu koy def pour diagnostico parce que lool dina vraiment limiter wàññi bu baax euh, contamination yi et tamit ñu bañ ñoo jàpp ni vraiment il faut nit ñi ñu ñaxtu am na solo trop c'est vrai que moom wàññeeku na trop par rapport ak variant delta mais du caagi nekk dañu war a ko dañ ko war a ñàkkal pour au contraire dañu war a ñëw consulter mais surtout dañu war a dem vacciner wu. ginnaaw kàddoom yooyu ndax askanu Sénégal jox nañu dëgg-dëgg li nga xam ne mooy gëdd ci li nga xam ne noonu la feebar bi doxee jamono yi ndaxte takku masque mi raxas loxo yi wala dendante bi loolu yëpp daanaka kenn respecté tu ko ba tax na rek mu mel ni daal li nga xam ni mooy feebar bii di delta omicron di virus bu bees bi moom dafa mel ni sax soxalu feebar la boo xam ji feebar buy faat la ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul